asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ndeykoor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukki fan ñett bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla miy wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko ci sa topp allahumma musarrif alquluubi sarrif quluubana ala taatik xadiisu bis bi jëleef na ci kaab ibn malik yàlla na yàlla gërëm leen mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana bég xar kanam gi day leer ba mel ni dogetu weer nun nag xamoon nañu loolu ci moom xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali an kaab ibn malik radiallahu anhu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam